mbokk internet yi yéen ngi seen benen numéro l'invité ci euh, antv TV l'invité nag tey euh, seet si woon euh, benn champion bu mag ku ñuy wax le géant du bawal moy ñu gën ko xam ci tafatine tafatine ñu ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu wa Sénégal. wa waaw alaykum mbok yi ma ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu sénégalais yépp di nuyu fans yi yépp di nuyu supporters yi di nuyu monde lam di nuyu Sénégal yépp ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti. di nuyu sama mbokki bopp di nuyu sama soxna ak sama famille xam nga euh, ak ñu bëgg tafaatinte yàlla tax ñëpp maa ngi leen di siyaar di la siyaar yow Souleymane ak Bunaama di nuyu waa Hann TV. waaw mbër bon fekk nañ la nga nekk si ay liggéey yu métti ah bon man xaw ma la ko fi jar saa waaye dama ne xanaa dafa lekk ay avance ak loolu wala nu mu fa demee noonu. waaw loolu dëgg la ñun xam nga bu ñu xëyee mën naa ne lii mooy suñu bureau quoi bu ñu xëyee bu ñu demee salle wala ñu dem géej xam mun naa ne wàcc nañu ko xam nga dañu xaar beneen yoon rek ñu xëyaat def même chose comme ni gars yi xëy seen magasin wala seen boutique wala seen bureau ñun noonu la ko waa noonu la ñuy xëyee bu ñu xëyee dañuy nekk ci waar wi rek parce que lii moom la ñu opté xam nga mënul ñàkk waaw di nuyu monde lam yëpp di la déglu question yi ñu dem ci. waaw mais man am na loo xam ne moom dama ne woon su ma dajee yow faaw ma laaj la ko xam nga man yow dañ ne sa xol dala jege da nga tàmm saa yow bëree boo daanee jooy boo daanoo jooy ko <laughs> demee noonu xol bee non loolu yëpp mën na nekk xam nga ñun bu balaa dara xew ay ay ay ay ay jullit lañu ay taalibe sëñ Tuubaa lañu xam nga man sëñ Modou Moustapha laa tudd xam du noonu xam rek des day metti làmb ni ñu koy doxee ak fi ngay jaar ak coono yi ngi ciy daj xam ak ñi ciy jàpp te yàlla tax xam nga ak bu ma xoolee sama supporters yi ni ma leen bu ma daanee livré leen rek xam nga loolu mo waral xam nga dootuma mën a tee sama bop xam xam rongo ñi xam dal di wacc loolu la quoi mais nekul leneen quoi vraiment loolu bon mo seetlu nañ bi nga joggé ci euh, claf bi ah ñu dellu tout si ginnaaw bi nga joggé ci claf bi sa relance dafa gaawoon donte ci claf bi amon nga fa deux défaites euh, deux défaites ben victoire mais dang fa joggé tégalé fa wa claf ba claf ba voilà mais ba nga fa joggé tégalé nga fi ay victoire daan nga fi ay poids lourd xam sa yoon kii ba nga dem ba bari fekk roi des arènes légui bi nga fa joggé ñu gis la nga dugg ci benen tournoi bu ñu wax tenté mais tamit bi nga jógee si TNT beeg légui waaw bi nga jógee si TNT bi relance bi dafa xaw a yéex lan moo tax relance bi dafa xaw a yéex. waaw comme ni nga ko expliqué rek 2006 euh, 2007 duggoon nañ ci benn tournoi xam nga dem euh, mu nekk suñu première défaite ñu teglante ci ñaar mu metti woon leer teelu ñu am gëm ah. defaat suñu dernière sont sortie yàlla may ñu am may ñu ci ndam xam nga ñu continuer liggéey di liggéey chaque année ñoo am benn combat xam nga bu ne ñu dajee ak Bombardier battre ko affaire yooyu noonu la demee bi ñu jógee ci Bombardier après dajee ak xam nga ñu jël fa defet vraiment après ñu ñëw toogaat quoi liggéeyaat. Mhm. noonu la demee. duggaat ci beneen tournoi yàlla def jëloo fa première mais après ba nga jógee si tournoi bi dañu gis ni relance bi dafa gaaw dem nga ba bëri seeg roi des arènes euh, bi dafa xaw a yéex benn combat nga fi am Yékini Junior nga ci daan. waaw dëgg la waaw loolu am na. lu tax mu yéex yéexaay bi. mais ci gars yi lay nekk quoi du nekk si man xam mhm. xam nga nit ku ne yaa gën a xam sa bopp. xam proposé nañ ma fa ay ay ay combat ay combat mais itam gars yi yow xam nga seen euh, seen seen jikko taxawal seen combat Malick yow mi diin la yombul mm-hmm. xam nga da nga leen di wax combat xaaral ma taggu sama yaay xaaral ma taggu sama bajan foofu lay nekk ba promoteur bi topp ci boobu maa xam nga daan ko mm-hmm. du yàqal suma yoon mm-hmm. après dem seeti leneen moom tam mu dem seeti leneen noonu la demee waaw léegi ci cadre boobu ba tey nga jógee bëreek Balla Gaye fekk mu nekkoon roi des arènes mu daan la legi nga joge fa dugg si ben tournoi bo xamne meun nañ ni bon do fa moroomu kenn gaay bi ñu dugg si tournoi bi dañuy fi fii tournoi bi fi moroomu kenn xam nga yalla def tournoi bobu nonu, ñaari victoire rek nga ci am am ci ben ndok ndok deug la legi lan mo taxoon nga dugg si tournoi bobu ba ci dugg lan mo tax. wa mais xam nga lo gis lu ne dang koy sante yalla parce que jam li mu sante yalla dafa wara a mhm. du deug deug la joge na ci Balla. Mhm. don tout titre droit roi de xam nga yalla def ma ñak ko. Mhm. yalla ngañu ma ci kenn ci kenn. xasuma ci kenn metti woon na ma teye ko suma xol xam nga dem daa dem bëre ji ñu daan ma ma toog def année blanche 2014 bërewu ma xam nga ñu ñëw proposé ma euh, tournoi TNT na ma ñii ak ñii la ñooñu bi ma leen di jël ñu ma doon laaj côté bu ne xam nga ma dem waxtaan ci ñi ma war ñu xelal ma ma dem jël ko xama dem am ci ñaari victoire benn défaite lépp sant ko yàlla quoi. parce que sport la na Sénégalais yi comprendre ne sport la ñuy def xama nga daan la ak daano gagné la ñu gagné la comme ni ñuy gagné basket bi comme ni ñuy gagné football bi comme boxeur bi noonu la man noonu laa ko jàppee sport la woon quoi après ñoom jóge nañ ci dañu dem seet leneen man tam ma dem seeti leneen ah loolu la oui. bon tamit taxawal sa combat ak VIP yi jafe parce que tamit bon ñu ngi fi wax ay sa comba ak yenn VIP yi bon Balla Gaye donte bëri ngeen ba pare mais am na fu mu toll gars ñu ngi doon laaj seen revanche bon taxawul euh, la de guerre bëri ngeen ba pare boobu léegi gars ñu ngi bëggaat seen combat taxawul même chose Modou Lo temps yee gis nañ xëccoo bu ci nekkoon sa diggante ak moom ak beneen promoteur boo xam ne daf ko bëggoon ak loolu lan moo tax VIP yi bëgguñu bëree ak yow. non man ah, xam nga ñoom seen bopp defuñu fi lu ma deful du dëgg man exemple ni ma la ko mën a expliquer luur yëpp maa leen gën a làmb ji ñoom ku ci def lu ma deful nañ ko wax ñi ñu daan laa daan ñuy bëre suñu biir bëre naag Balla mu daan ma Balla naan la ko Bombardier def Bombardier def ko daan ñëw daan Modou man dama daan Bombardier kon bu ñuy wax boyu s yi boy bu s ngi man lo japp jàpp bu dëgg bomber Bombardier bu naan ay boyu s yi fi newoon ci lam ji daan dan boy bu s baa ngi nii dafa daan Bombardier dafa daan modlo daan balagay man dama ko daan bomber Bombardier du non kon man awuma dara dara lu may yàkkamti wala lu may xama lu may lu may tiit suma carrière du deug damay tok daf suma ay entraînement ni mu waree ñom ku ci ñew ci yaw lay yakko bo ñewé ma defal la affaire nu mu gëna gaaw japp suma jambour man lo la gem xëy na daw yek làqtu yek yep ñom dafa am lu ñuy mayen lool nak seen affaire la man mënuma ci dara man maa ngi suma entraînement promoteur yak na ñew ci man mané ko damal nga waxtaan ak lutteur bu fekkee d'accord na ñu signé mais après bu demee ñëwaat dinaan vraiment sa way d'accord lo tam man mënuma ci dara lool la yalla dogal xëy no non gëmuma loolu ama bu la daane du questionné da ngay wacc mom mooy ñëw ci kaw ñun noonu lañ fi ne woon ak suñu grand ñoom Cech Abdou Diouf bi ñu leen di daan niveau bi ñu newoon ñu newuñu fi woon ak Bombardier ñoom ñoom dañu may loxo du dégg affaire yi noonu la ku ci ñeme na ko jël moom ama non fi fi gars yi egg la egg actuellement wax dëgg yàlla man damay te yàlla tax quoi mu nga fan nit ñi nekk fi champion yi nekk foofu la nekk boy nañ leen may seen chance ñu dugg si parce que booy xool luuri si kaw dañu manqué carrément dañu manqué parce que buñ ci taxawee ñaar ñett. dañu am problème ñen ay ñaara ci dess wala ki dañu tok xaar boy dañu wara fess fofu ñu bëre seen bir parce que kenn mënu leen ci voilà man ku ci bañu bëre ak ñom da nga leen ragal kessé loolu mo ci nek voilà bien sûr boy ku ci ay amanex papa saw guuy gi ni nga Garga mhm. mhm. waaw loolu mooy seen ref man ba may toll ñoom fa ñu toll noonu laa doon def ñoom foofu lañ tollu ci niveau boobu nañ leen ko nangul amul problème loolu laa am loolu laa am lu ma ciy wax du noonu man laa la wax ba may toll ñoom fa ñu toll nii laa doon def ah ñoom ci niveau boobu lañ nekk nañ leen ko nangul amul problème mais lan la lay def boo toogee kenn du ma du ma aw ma lu ma ciy tontu. aw ma aw ma lu may wax ak moom. non no non wax dëgg yàlla boobu ma ñuy yàgg si moom aw ma lu ma ciy wax. moom loolu ay choix la. na continuer ci plan ci line boobu di ci wax mais man aw ma lu muy wax ci loolu. waaw des na ci moom ñooñu sama suma ay naataango lañ des na ci moom amul problème keneen ak keneen bu ñëwee itam man du ma du ma cité ne ni mu jox kii wala kenn léegi saa si kenn mën nañ xam ba xam am na promoteur boo xam ne lay démarché waaw wala déet non géej nag depuis ci temps koor gi bi fi sama ciow contour ak Modou ba léegi depuis ba léegi vraiment amatuma benn contact quoi léegi ñu wax ci daj dëpp gi mooy li fi des gis nañ ni samedi bii le 28 bombardier dina dajeeg ak Sène muy combat royal te tamit amul benn mbër rêvé wu nekk roi des arènes ki ko nekk instant bi yow yàlla def am fu ngeen jaar daan nga ko keneen bi jotagu leen bëre sa mu ngi si ñooñu voilà. waaw bien sûr parce que ay champion lañu ay mbër lañu def nañu fi lu ñëpp def looloo waral ñuy seen bés bii samedi ñu leen ciy ñaanal jàmm xam nga ñëw daanante ci jàmm ak salaam mu bañ a am benn problème kii daan daan kii daanu daanu parce que lam doon la tëddee comme ni nga ko waxee dëgg la sama ay naataango lañu c'est normal ma beure ak ñom té samedi inshallah allah lamb ja ma nga fa dina ci jëmb dakar ba jël ci lingom ak kané bu mu saf saf inshallah allah non bul son non day tew taxtiri bi fo mu wacc ci samedi inshallah allah non mënul ñàkk insha allah non ku daana ku daanu yépp ben la ci man du ñom beure na xeyna beure na ak bombardier musuma beure ak amat sen mais nag bu ma sañoon xam nga ku daan ku daanu yëpp daal en tout cas Tapha pare na pour bëre ak yow waaw laajuma ci kenn nag kii daan naa ko soxlawu ma ma koy laaj keneen ki mosuñoo bari ku daan ku daanu yëpp pare na waaye en même temps di di di di ñaanal Pape Diallis bi nga xam ne moo organiser lambu ji xam nga di ko ñaanal lépp lu mu ci mébét ne mu am ko ci quoi parce que yoon la ñu jàppale ko parce que gis nañu saison ren bi bu nekkul woon ak moom mu naan affaire yi dina am fu mu sooxe quoi parce que vraiment dox na ci ay jéego yu mag a mag a parce que quatre combats yu mag wala cinq yu mag ci année bi nga taxawal ko yombul te moom def na lool vraiment maa ngi koy remercier bu baax grand jaajëf. avant ñoo dugg si koor gi gisoon nañ ay yi mooy diggante CNG bi ak mbër yi mbër yi dañoo def benn collectif gis nañ la si sax yow am na seen audience yoo xam ne ñëw nga ci mooy ñoon am ak ministre bi def seen collectif xam nga ñenn ñi di wax na fi CNG bi jógee ñenn ñi ne dagg yi bëri na ñenn ñi di wax ànduñu ci règlement bi nu mu mel nii léegi yow loolu moo mën na ciy laaj sa xalaat yow lan nga bëggoon ñu changer ci règlement bi wala diggante coow yi ngeen am ak CNG loo ci xalaat mooy solution bi waa dëgg la comme niñ koy waxee rek ma gën a xam moom moom kuy ak Boy Niang ñu ko ci moom tam vraiment mu am ci réussite total comme ni nga ko waxee nag CNG ak lutteurs yi xam Ya na ñu bokk lam ji CNG day organiser mbëri ay mbër lañu yo xamne ni xam nga tout temps dañuy am deux fois lu leen nakari lolu tax ñuy ñaxtu xam nga man bu ñuy ñaxtu mbër c'est normal man ma bokk ci du deug parce que mbër la comme ñom du deug li ñuy def lay def li ñuy lay laay ko xaalis xaalis la du deug xaalisu jambour tay boko jëlé 5000 da ngay imaginer tay ñu jël sa xaalis fo jaar mu metti la problème mu dagi nak xajna mënul ñak bon mais comme gars yi li kaas nañu ko nañu ko nañu ko wàññi bu baax a baax quoi du dégg en même temps système bu bëre bi aussi des fois gars yi foofu la ñuy gën a meree des fois parce que booy xool quatre appuis day am arbitre daw soufflé xam nga ñaari mbër yu bëre ba kenn def quatre appuis normalement ki ne ci kaw moo am priorité pour daan mais kooku boo arrêté combat am yàqal nga ko te gis nañu ko bu yàggul rek mu ngoog gis nañu ko ci combat Kewel ak beneen comba booy demee na noonu. en tout ñu xoolaat euh, règlement yi bu baax a baax a baax a baax loolu lu ci am solo la quoi parce que gars yi lu ñuy ñaxtu loolu la man sama combat passé dañu dagg sama xaalis te même soos la rek xam nga et puis saa boo defee ay combat ñu dagg sa xaalis xam itam neexul quoi gars yi xëy na loolu la ñuy kaas loolu leen naqari rek mais xëy na pour man nekkul leneen quoi. yow kon ñii wax na fi bon Alioune saar jógee yow loo ci xalaat ci loolu. xam nga Alioune Sarr comme ni ma koy expliquer dafa wara a ñepp dal daal ñepp moy comme limay expliquer rek lolu moy problème bi bu ñu won woon bëri yëpp yemale leen ñom ñepp xëñna problème du am man nak leader la comme leader yëpp bu ñu wootee dem bi ministre sport woté ministère dama dem tok comme leader yëpp tok xam nga ñu wax ministère bi wax gaay yi bind jox ko xam nga lamu bind jox leen ñu ngi tok di déglu ay réponse xëñna bu légui amagul mais gaay ñu ngi tok di xaar solution am ci lool lool la am luma ci wax arène nationale bi baax na baax na macha allah. macha allah moom amul luñ ciy wax quoi parce que dañu doon am problème. man boo gis sama combat bi passé tout mu yàqu pro problème mu. problème mu ngoog parce que waa ji dem na dab Ibamar ci terrain bi. Mhm. am ay problème mu làmp affaire yooyu. Mhm. Demba Diop amoon na ay problème période boobu. Mhm. xam nga amitié ñu noonu am na leneen xaw ma nu mu demee noonu. après waa ji bëggul làmb ji yàqu parce que bi mu ko taxawalee presque def na cinq mois. xam bëgg na mbir yi dem nekk ci leneen xam ñu waxtanat après mu yobbu ko amadou bëri quoi ñu waccu ak mom vraiment kon bu ñu amee arène dañu koy sant yalla xam nga di ko président wax dëgg yalla parce que tam xam nga dox na ci ay djégo dal vraiment bon am nañ benn coach bo xam doon nañ ko gis muy andak bawol mbolo doon andak ak tafatine surpent bu ñu xamee coach bobu tay bawol mbolo motax tay gis nañ àndatoloog yeen muy euh, omez bon dafa am problème sen digënté ak staff bi wala digënté ak tafatine wala lu ci nekk non bul ne bu ñu gisatul bawol mbooloo non bawol mbooloo dafa yàlla ñoom dañu ñëw fekk ñu ñuy liggéey suñu liggéey du noonu xëj na nag doon nañu ànd comme ni ñu koy waxee ana boo gis dafa am fu ko yàlla yemale xëj na suñu ànd foofu la ko yàlla yemale mu ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm maa ngi déggante ak ay mbokkam maire am ak yëpp macha allah suñu papa la ñu ngi koy ñaanal am lu fan ak weer xam nga la mu nekk di ko ci ñaanal résultat total quoi dëgg yàlla écrit bi moom ba léegi mooy fi écrit bi maanaam bawol la jógee ba bu fii muy waxee yow boo déggee bawol mbooloo comprendre bawol la jógee dund bu fii yàgg na noonu la demee daal bu léegi nii muy fonctionné macha allah di ñaanal sama booy tafaaleer bi nga xam ne moo war a bëre le cent bi nga xam ne mooy tëj euh, saison bi astafurlah le le 31 bi di ko ñaanal sama mu am ndam daal ñu tej saison bi ak victoire suma écrit ok ok mbor ci biir liguey bi ci entraînement bi fekk nañ la ngay liguey lo xamni bon gisunu ko ci béré d'or lolu dafa xaw a niroog bëre bi nga xamni moy bi euh, bombardier défé won genève muy mma bi tamit dafa melni da ngay liguey ci walu wowo wa dëgg la comme niñ ko expliquer rek xam nga moy comme limay wax rek té yaakar na ñoo nga fekk mo may def benen sport bu méngoowul ak sport sénégal lolu nak bu amé ma ngi ci sawdab sama copain Abdou Diam xam nga di ko bëggee mun naa ne jàpp na ci liggéey bi xam nga bu loolu weesoo nag maa ngi siyaar sama gars yi nekk fële Senef xam nga vraiment maa ngi am ay contact yoo xam ne xam nga na ma Sénégal yëpp ñaanal bon waaw nañ nekk Sénégal yëpp ñaanal jotewul dara ak bërëb bi may def fii bu ma amee combat fële mun naa ko dem defi boo amee Sénégal fii combat mun naa ko ñëw def contact yaa ngi daw xam nga amna ay luur yu nek fee na xaw nañu manqué xam na ma Sénégal yëpp ñaanal dal comme mo dem compléter len pour dem bokk ci compétition yoyu mais bëre bobu bon MMA comme ni koy waxe mix martial arts la tamit bon amna lu ne xam nga comme Sénégal li ñu leen xamee mooy jàpp daan ñibi jeex na te ba tamit façon technique de combat bu ne mo ngi ci est-ce que luuru Sénégal yi am ci chance. xam nga Sénégal moom boko ko waxee moom ci côté bu nekk maanaam ñoom maanaam yalla daf leena may don loolu ñu wax don côté bu ne mo mën nañ ko. foo leen battre rek maanaam dañuy coupe du dégg sport bu rek sport bu ma neex la ma bu may siif xam naa ko bu baax maa ngi ko siif bu baax a baax yàgg na mun naa ne comme entraînement yi ma fekk nii depuis un maa ngi ciy liggéey xam nga ak ñi ma ci war a liggéey ñu ngi ma ciy xelal aussi fan laa war a jaar nii laay def xam nga yaa ngi mu fekk ma ciy liggéey tuuti tuuti xam maa ngi ci yoon bi daal te yaakaar naa balaa affaire yi egg dina am réussite totale quoi incha allah. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax sama gaa yi nekk foofu nañu ma xaar Senef man maa ngi ñëw hmm, Yuri Sandu Record Balboa Bombardier Bobby Lashley Tapha Tine mu ngi ñëw dal seen kaw xaaruma leen ci dara bu ma ñëwee damay dal seen kaw te dina métti ci yéen incha allah jaayeen jëf waaw bu loolu weesoo nag xam nga maa ngi sant ñëpp di gërëm di la sant yow di sant sa caméraman bi ak Abdou xam nga di santaat famille bi di sant monde lutte di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaanal sama supporters yi di leen bëggee ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm te xam ne bu ñuy son rek ñoom la daal te ñu may ñaanal incha li nga xam ne moom laa dul muy sport MMA bi nga xam ne moom laa bëgg a traay fan yi ñu ñaanal ma ci jàppale ma ci xam nga tafaatin di dem Sénégal di ñëw Sénégal di def ay combat Bombardier nag comme ni ma koy waxee dem na foofu def benn combat xam nga ñu ngi ko ñaanal vraiment affaire yi ci moom la jaar comprendre ñu ngi ko ci remercier di ko ci ñaanal bu baax mais itam Tapha Tine mu koy xaar foofu ci kaas bi incha pour mu ñëw ma defal ko fi bagage comme que defal naa ko bagage yi maa ngi koy xaar Senef incha allah yow bool ba nag dégg naa ngay rawandeeke di ci jéem a am looy wax yow bu ma ñëwee yow laa jëkk a nappaaje yow doog laa def dara incha allah. kon moo ñu gërëm moo nekkoon euh, Tapha Tine le géant de Baol Mbollo vogliamo che andiamo a passare con il numero, non so,